waaw kay da ngeen may déglu dama ne nawle daa foor. dama ne ko nawle daa foor. teel loxo bi rek Sadio nga xool maanaam teel loxo bi rek bul bisu teel loxo bi rek voilà voilà ah. Eh. fi nga toll ci man tey mel ni géej amul limit non non limit dama laa wóolu nga ñëw bañ a. jege ko bu baax jege ko jege ko jege ko. jege ko maanaam da nga ko sori. da nga ko sori waaw jege ko bu baax laal si kii bi noonu nga xool ko. لا سكيل ساي مو ساي خورغو ساي خورغو <laughs> <laughs> <laughs> non non Sadio je non.